mu doon def tournée ci juróomi département yi am ci région de Dakar ministre de l'intérieur daal dina ñëwaat ci yooyu visite. que ni le matériel électoral fépp fu mu waroon dem dem na fa tournée bu nu def bi tey ci région de Dakar ci cinq département yi wane na ko. donc matériel bi àgg na fu mu war a àgg bureau de vote yu composé nun ko nun ko war a composé. donc mu des électeurs yi suba huit heures bureau yu ubbi. ñu ñaan yàlla nu jël temps bu bu normal bu. bu gàtt lu mu gën a gàtt rek gën a baax nu bañ ko paraparaxe mais aussi nu bañ ko guddal xoon naa ko waxati ko comme yoon mayee na ko nu nu tànn juróomi bulletin moo gën su ko defee vote bi gaaw comme weeru koor nu nu nekk balaa sept dina fekk kon bureau yëpp arrêté nu def seen dépouillement résultat yi génn jaar fu mu war a jaar bu àgg ci commission nationale bu ko war bi proclamé. moom nag daal dina profité ci occasion bi ñaax presse bi. ñu gën a farlu ci ni ñuy joxe information yi. ku ci lu la jaaxal laaj ñu ngi ko war laaj bul informé wu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 pour ngir ñu am élection bu dal moo ngi woo force de défense et de sécurité yi ñu daal di sécuriser vote bi aar ñi nga xamante ne ñooy électeurs yi ak observateurs yi nga xamante ne jóge nañu ci yeneen dëkk yi nekk fii ci Sénégal